daanu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 leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen tey nag ñu ngi euh, ci bésu aljuma buñ ko waxee nag vendredi 24 septembre la ñu ne li may def mooy bàyyi leen ngeen dem yi déglu yëglikaay li ñu leen di dikkaat ak yéen si plateau bi. asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 24 septembre 2021 dañuy ñëw ak yéen ci yëglikaay su lamb la ñuy xëy doo rek ko. yëglikaay bii di sunu làmb nag tey xëtam mu njëkk kam ca xëy fësal moom moo di rëg-rëg ma nga xam ne mu nga ci réewum États-Unis fa ñuy wax Los Angeles rëg-rëg nag fa la xëy waxee ak bi nga xam ne moo di sunu làmb yëglikaay bi jot leen wax ja rëg-rëg nag ña wax naan mën naa dépassé Yékini wala mënu koo dépassé ak yu mel ni ki noonu mel ni ki nag wax jooja rëg-rëg amal na ca ay tontu la mu leen amal daal ne na moom bëgg-bëggam daal moo di romb fa yax yi jóob Yékini yemoon rëg-rëg ne la la mu gis wala la mu bëgg mooy dem ba romb ka nga xam ne moom moo di Yékini loolu moo di ay gis-gisam wala boog moo di bëgg-bëggam keneen koo xam ne ba tey ca wax jooja wala yóbbante booba jot na ca wàllam muy guy gi rëg-rëg nee na ko daal moom sama diggante ak moom loo ci mën a dégg nee na li am ba des daal bor la boo xam ne nii moom la ma ameel tey itam bor boobu dana ko fay ci ni wala ci naa yemu ca nee itam boo bëggee dégg dëgg seen diggante moo moo ki nga xam ne ni moom moo di guy gi xalaatu ca sax di tiit wala muy am lu mu cay xel ñaar moom kay la mu cay xalaat mooy combat ba yegg si mu jàpp ko bëre ak moom daan ko ne lii dong mooy bëgg-bëggam loolu la gëm te loolu la gis loolu mooy wax yi rëg yemu ca wàllum MMA ma tamit rëg-rëg tontu na ca ne na lay am ba des daal jamono jii ñuy wax moom MMA bi da koo te tegandi ci suuf ba ca kanam a kanam loolu mooy ay waxi rëg-rëg ki nga xam ne nag moom combat am ci kanam tuuti war naa am wala weer yi nu jëm muy tafaatin digganteem ak Boy Niang moo tax yëglikaay bi ne na ko moom it day am na ay mbir yoo xam ne moo Pikine ndax ku ne xam na ne ba mu fay mujj Ama Baldé da koo daanoon moo tax yëglikaay bi ne na revanche booba war na koo jël muy mbir moo xam ne mu ngi koy xaar yemuñu ca ak itam jéem a daan booy Niang ngir nag la nga xam ne nii moom mooy cardas ba ca kaw wala boog ña nga xam ne moom la ñuy tudde big five ba ca làmb ja moom tafaatin mu jéem caa taxaw bokkaat ca bu baax a baax a baax ka mu war a bëreel nag wala boog fa ka mu war a dugg bëre fa muy kombaam ak Boy Niang yëglikaay bi ne na boo bëggee dégg dëgg Pikine googa la nay des ka nga xam ne nii wala boog ka nga ne daanoon na tafaatin muy Ama Balde écrém ba nga xam ne fa la ne muy école de Fallaye Balde yëglikaay bi ne na seen bilan ren boo xoolee daal combat yi waaye fexe nañ ba seen i ndam ëpp seen i victoire wala boog seen i ëpp seen ay défaite yëglikaay bi ne na ñaari victoire la ñu am ak la nga xam ne nii moom moo di benn défaite moo tax Zil Balde ma leen di tàggat moom la mu xam ne daal dana donte combat yi bëriwul waaye bilan ba loo ci mën a dégg baax na stage ba nga xam ne nag fukki fan ak benn la woon maanaam te nga xam ne moo di Bamba Mbuub doon ko def dajale woon lu toll ci juróom-ñett fukki mbër mu nekkoon eh, eh, stage boo xam ne dañ koo tëdd maanaam daal dañu ko fermé woon boog yëglikaay bi nag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 favori yëgli bi am na ñoo xam ne tamit daa jàpp ne fi mu nekk nii kenn mënatu leen a gis ak ay bët bokk na ci lig Nicolay yëgli kay bi na fi mu nekk nii day gis ko jafe na ka ca des moom moo di Abbas Ndoy président Fass Ndakaaru yëgli kay bi ne moom tamit fi mu nekk nii daal raar la dëgg dëgg dëgg la Abbas def maanaam ñaar ñii daal gis leen bokkatul ci loo xam ne nii lu yomb la jamono ji nga xam ne moom moo di jamono ji nu toll jërë ngeen jëf kon dégg ngeen yëglikaay sunu làmb tey loolu la xëy tey dikkal ñu ko ci xëtam mu njëkk mu mel ni kon daal ka ci gën a fës tey moom moo di Omar Kane ñu naan ko rëg-rëg nag depuis ci réewum États-Unis nga mu nekk fa la yónnee ay waxaam ka nga yëglikaay bi nga xam ne moom moo di sunu làmb wax ya nag gis ngeen rëg-rëg noonu yëglikaay woon ñu ko ci aw photo bu fës a fës wax ja nag defe naa ne bokk na ci daal li leer ba leer mooy diggante ak ki nga xam ne nii moom moo di Yaxya Jóob Yékini ci ñi doon xalaat naan est-ce que mën na koo égaler mën naa taxaw fi Yékini taxaw wala mu def li mu def moom nag gis-gisam moom la mu gëm ba ko tontu na mooy moom raw Yékini la bëgg te itam loolu ci la nekk ci liggéey muy xale boo xam ne ah yaakaar naa ne euh, tamit ci ni ci làmb comme li ñuy wax chaque jour rek bu fekkente ne continuer na ci lancé bi mu nekk ah ëllëg mën nañ ko xaar fu ne ci làmb ndax nag mbër la bi nga xam ne ah mu ngi si làmb def na ci lit simple bi loo xam ne bëri na ñoo xam ne fekk nañ làmbi démb ak làmbi tey nañ jafe nañ gis mbër def ko ci lit simple ñu ne déet ne waaye lit avec frappe amagu ci defet kon defe naa nag loolu ab liggéey koy maye liggéey boobu muy def nag ba tax mu am niveau bi muy am tey boole ko MMA bi bu continuer ci loolu comme li mu wax moom bu ko gëmee noonu continuer ah pourquoi war na ma mën a dem ba dépassé Yékini comme ni mu ko waxee te itam nit ku ne loolu nga bëgg ah maanaam mbir moo dugg ka ca nekkoon ñu ne def na ca jaloore yow ma ca dugg tamit boo sañoon da ko cay dépassé def ba def ca lum ca deful woon loolu defe naa ne nii am na droit bëgg ko ci boppam yéene ko boppam te la ko koy may nag ku ne xam na ko mooy liggéey te itam rëg-rëg ku ne xam na ne ci côté boobu moom ci li ñu xamagu ci moom ba fii nu koy waxe xam nañ ne mbër bu sérieux la moom ci côté yi nga xam ne nii moom mooy côté làmb ji yamu ca adversaire am di guy gi tamit wax na ak moom waa ci wàllum bor wala det boo xam ne daal amel na ko ko wala boo xam ne daal bu mu war a fay la waaw ne na tamit loolu moom na leer jàpp na ne tamit seen combat du ci badine maanaam amul lu mu ciy tiit waaw du ci sax xalaat waaw parce que lam ca gis mooy bëree rek daan ko loolu la jàpp loolu nag defe naa ne mooy ay droit am parce que li tax mooy wala boog moom bu moom mooy ay droit am sax waaw parce que li tax mooy ay droit moom mooy adversaire wu guy gi moom moo am droit wu xalaat ne adversaire am gisut ci moom lenn lu dul jàpp ko bëreek moom daan ko waaye loolu nag kañ lay leer bisu combat ba mois de janvier yàlla nañ fi yàlla bàyyi ñu fekke ko te tal ko parce que combat la boo xam ne comme li ma wax combat jànq la combat bu amateur yi lamb yi yaakaar a gis la parce que lan mooy freiné rëg-rëg kan lay doon loolu fi ñëpp nga ko bëgg a xam am na ñoo xam ne nee nañ guy gi mën na ko am na ñoo xam ne dañ ne mënu ko parce que wax ji ku nekk ak na nga koy gisee waaye bu ñu yéegee ca bés ba ah lu waay doon jaay dina lamb incha allahu rabbi wàllum MMA bi tamit wax na ci fi mu nekk nii moom da san bàyyi quoi ba ci kanam waaw waaw loolu c'est normal que tamit euh, combat bi mu jublu ak fi ko combat bi mën a yóbbu ah loolu moo tax xam naa ne mu mu bëgg concentre wu bu baax ci combat am te combat bi soreetul parce que mois de septembre presque. mu ngi waaja a dee te defe naa ne mois de septembre bu dee octobre novembre la ñuy décembre parce que mën nga ne kon trois mois moo des ci digganteem ak guy gi loolu mën nañ ne yàggatul ci komba boo xam ne mu taxee ak léegi xaw na yàgg tuuti keneen koo xam ne nii tamit am na combat muy tafaatin digganteem ak Boy Niang yëglikaay bi ñëw na ci ay mbir yu koy xaar moom ngeen gis tafaanoon mu gàddum dëndëm hmm? mel ni kuy samp ca géew ba ah, am na ay défi yu koy xaar ñaari défi yoo xam ne ni daal mu ngi koy xaar bokk na ci jël revanche am ci biir pikin parce que ku ne xam na ne Ama tafaatin di du moins Ama Baldé da ko daan bu yàggul muy defet boo xam ne am na lu baree baree baree bari lu mu xaw a euh, kii ci carrière am parce que tamit defet boobu nekkoon na defet boo xam ne ni bu metti woon la ci moom waaye terewul ba mu ca jógee ah continué waat na làmbam ba yàlla def mu ama muy bëree xam nga Euh, ba daan fi Yékini Junior yàlla dogal mu amaat fi tey combat ak Boy Niang euh, loolu nag defe naa ne revanche la boo xam ne nii moom ci la jëm ñu ne déet na waaye li nga xam ne nii moom la ñu tuddee Big Four comme ni ko yëgli kay waxee tamit beneen défilé boo xam bu koy xaar la mu ngir mu war caa dugg loolu nag li ko koy may mooy muy daan Boy Niang ndax dina daan Boy Niang wala du ko daan tamit li ma waxoon fee rek dañu yónni yàgg rek buñ fi yàlla bàyyee bu mois de janvier ah astaghfirullah ba le 19 décembre du moins ñu xam ñoom ñaar fu wane di mujj ak ay bëtam ba tey duñu sori Pikine ndax école de Falaye Baldé deux victoires de une mel ni foofu tamit ah lafa am mooy boo xoolee euh, combat yi bariwul waaye fexe nañ ba lu mu néew néew néew victoire moom moo ëpp Jules Baldé dama leen di tàggat nag nee na moom boo bëggee dégg-dëgg li mu gis mooy daal ah seen résultat baax na seen bilan baax na moom loolu la gis ñu koy nuyu di ko ak stage bi nga xam ne moom la doon defal ay mbër stage fermé boo xam ne ni 11 jours la woon mu mel ni ki nag yëglikaay war nañu ko aw foro ba ma mbub Hmm? mu mel ni mbir mooma nag jeex na fañ ko doon defee moom mooy ca stade Léopold Sédar Senghor waaye mbir daal boo bëggee dégg dëgg moom tëj nañu ko mu mel ni kon loolu moo fi ñëwoon tey ci yëglekaay yi moo muy sunu làmb ak yeneen ah, di balu ñëpp ak di ñëpp jàmm di balu ñëpp ñëpp ak si àjjuma ji di wax que ni màggal gi nu jëm yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm ñu ñibbisi ci ak jàmm encore une fois ñuy wax que ni chauffeur yi nga xam ne ñoom ñooy yeb nit ñi di leen yóbbu ah nañu def ndànk rek parce que am 5 heures temps ci yoon wi. te yegg Touba ci jàmm moo ëpp bëgg a lem yoon wi ci benn une heure de temps wala deux heures de temps te bu keroogee mën na jur musiba te loolu ñaanuñu ko te loolu tam wax dëgg yàlla soxlawuñ ko ci dañoo bëgg rek ñu def ndànk fu waaye mën a jóge moo xam foo mën a jóge ci àddina bi jëm si Touba nga def ndànk waaw daw ndànk dal ndànk kotu sëñ fàllu ba daal nan koy fàttaleku sëñ Fallou da doon wax ne bu ne yàng nga ne yool bu ne tej nga ne teg loolu la waxoon maanaam bu yoon wi ubbee yaatu dawal normal yaa ngi dégg waaye boo gisee ne yoon wi xat na nga daw ndànk ndax nag daw ndànk dal ndànk waaw waaye daw bu baax it dal bu baax te nag màggal comme ñëpp ay jógandoo te jëmukaay bi benn lay doon il fallait que yoon wi xat kenn mënut wax bu du xat loolu ni may amee su ci pexe ndax benn dëkk lañ jëm bu ñuy wax Tuubaa te itam ñépp fa la ñuy aw yoon yi fu ne la jóge te defe naa bu ñëpp jóganu nag noo benn dëkk jëm fa ngir wooteb Serigne Touba Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasul muy le 18 safar defe naa ne kon loolu itam dafay baax ka ne ku ne xam ne que rek nga yaatal sa xol ubbil ko sa morom pour ñu mën fa yegg ci jàmm pour lañ fa yóbbu ñu mën ko defal borom ca na nan ko na mu ko bëggee ñu mën a ñibbisiwaat si jàmm ñaanat yàlla fekkaat ko yeneen at loolu rek lañu ci wax di ñaanal xalifa bi Serigne Mountakha yal na ko fi yàlla yàggal barke yonent bi sallallahu alayhi wa ak xalifa yi nekk général xalifa xalifa yi nekk si réew mi yëpp di ñaanal taalib bi yëpp waaye di ñaanal jullit yëpp di ñaanal Sénégal yëpp di ñaan jàmm ci àddina bi parce que jàmm nee nañ mooy mooy mbokkam njaboot nee borom njaboot jàmmay mbokkam waaw njaboot jàmmay mbokkam kon jàmm la ñuy ñaan saa su nekk rek waaw jàmm la ñuy ñaan saa su ne waaye tamit di remercier sama waa dëkk waa ak yaay parce que démb ah def nañ safar ci pénc ma waaw loolu am na solo trop mu ci nuyu ñu fa nekkoon ñëpp di ko taxawee muy suñu mag yi pénc ma suñu imaam suñu papa Mor Ngom ak ña ko doon doxal yëpp xale ya yëngu ca wàllum daayira ba ak jigéen ña ñoom ñëpp ñu ngi leen di wax que ni jërëjëf jërë ngeen jëf loolu am na solo parce que tamit yaakaar naa ne euh, jàng alxuraan jàng ay xasida wàcce euh, joxe ay bernde euh, yaakaar naa ne ak jaamu yàlla la boo xam ne gu yàlla bëgg la yaa ngi dégg. te loolu fu ne lañ koy defee ci réew mi kon encore une fois yàlla nañ ci dugg ak jàmm génn ci ak jàmm di nuyu ñëpp di ñaan ñëpp jàmm di wax que ni yi rek ah xam naa judéa bi nag comme màggal gi ñëw ñëw na moom xëy na fan yi di ngeen ko gëj gis tuuti waaye nag du tere après incha allah su màggal gi passé moom di ngeen ñu gisaat mais du tere nag di ngeen di xel di am ay vidéo incha allah rabbi waaw di ñaanal ñëpp jàmm di wax que ni Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam di remercier xule bu baax a baax a baax a baax